s'il écoute des gens comme monsieur Mboup bii ci ni mu koy waxee théoricien ba pare qui n'a pas pratiqué réellement ce que c'est que l'État dugg ci biir xam les politiques man booree bien aimé monsieur Mboup nga dem wuti base politique moi je suis journaliste j'ai travaillé dans une institution qui s'appelle RTS je n'ai jamais utilisé l'antenne contre le président Abdoulaye Wade pourtant j'étais membre fondateur de l'APR et je travaillais nekk dama daan toog di def ba sama mbokk appaire di ma ci mere mais su ma ci pare maa ngi jandeer wuti base et j'ai clamé haut et fort mon appartenance à l'APR man loolu je dis dafay leeral débat politique nit ñi booy wax ñu xam kii wax kan la mais monsieur Ngouda vous borom xam-xam nga weddi wu ma ko de man du ma weranteex man sax ci affaire droit mais le message na passe pas parce que c'est toujours orienté d'un seul côté vers un seul lieu c'est le la paire c'est le président et on a l'impression que Ousmane Sonko c'est un saint on n'a rien à lui et c'est ça qui est dangereux alors euh,